responsable au premier chef état là parce que bu dee policiers ñoo ne ci yoon bi bu dee gendarme ñoo ne ci yoon bi bu dee ordre ak ki ñom ñoko wara yoré mais chauffeur bu dik joxe 1000 francs ñu bàyyi nga dem kañ lay bax dara du bax ku wax chauffeur dang ko togn ku wax camionneur dang ko togn tooñ lu waaye wax lu waxo état dang ko togn bu ñu japp ci daw ci tali bi ñu bàyyi leen ci leen neex man buma ma ñu tëj ma yow mi fi ngay liggéey ni bo fa defee la wur def ñu dakh la donc auto bo dik di def la wurul def ki ngi ci kaw tali bu diké mu jox ko 1000 francs mu dem kan mo togn camion yàqul dara ñi nga état bi ñoom ñoo yàq ñoo yàq réew mi nit da nga koy lu mën a doon ci ay loi la war a tegu ak règlement autorisé kii bu dee kii visite technique n'est-ce pas ñoo asse kii la ñoom ñoo ko yore boo dikkee nga neex la ñu bala nga jàll te dara baaxul kan moo tooñ nañ bàyyi camionneur te ñoom li nga xam ne li ñu war a def ci camionneur ñu def ko bu ñu bëggee problème yi jeex mais bu dee lii indiscipline fu mu am notoire sax moo am muy chauffeur muy ñëpp yem kenn yaruwu ci ku nekk la neex ngay def réew moo xam ne ku nekk lu la neex ngay def nag lu ñu gis dañ ca war a jàpp. amul cami Covid bu commencé ak léegi benn oto amul visite technique benn amu ko si parce que dañoo arrêté affaire bi dañ ko aj boo demoon instant bi xanaa xëy na reprendre nañ yaakaar naa ne mais oto yi benn amu ci visite technique ñoom léegi ci kan la parce que bu dee visite technique nga ne nañ ko aj ndax Covid bi la mais Covid warul tee nit ñi dikk def seen visite technique feebar la rek du comme feebar day jàll comme pal yi comme leneen mais warul tax nit ñi bàyyi seen liggéey. bu dee tali bi nii yaa ngi daw amoo visite technique romb nga benn agent na la arrêté fourrière la mais bu ñu ko defoon un mois rek lépp baax mais bu dee laisser aller bu ñuy def ni dara du baax te ku ñu wax dañ laa yeb dañ laa toog mais li nga xamante ne si mooy oto yi def problème oto yoo xam ne moo mag chauffeur ba moo mag boroom visite technique boo yoree dara boo neex lay jàll. sëñ bi nañu dimbali ngir yàlla. Macky saal sax xam na ko parce que dem na ba ci télé di naan 1000 francs yi gars yi di joxe natt bi ñuy joxe natt boo dul teggi mukk foo romb joxe 1000 bu weer dee doo teggi mais ce bu fi jeexul bi dara mënul parce que gis nga am réew day am kilifa bu président de la république mais dafa l'état et démembrement, ki su nekk am na foo féete ku nekk fa nga la la fa war def ko. la assurance boo joxee 10 francs ñu bala dem Sénégal li fi la nit ñi waxul instant bi bi assurance mën daw te du am assurance agent bu mu nga jox ko 10 000 mu bala nga dem demal dagg bu la neexee nga dagg bu la neexee nga dawaat trois jours 4 jours yëpp soog amee ka ko kala bàyyi nga dem moo ko def laisser aller masla bu du maslaa sax maslaa boo xam ne yow yaa da joxe xaalis maslaa da ngay dëkk ngeen waxtaan ngeen juboo nga ko ne dem mais loo xam dangay ngay neex la dem kooku c'est du n'importe quoi kenn xamul lan la du du oto du oto bu ndaw du camion dara ñëpp a yem instant bi boo demoon benn rond benn giratoire nii amul xooluñu priorité ku nekk da ngay nu la neex duggee l'essentiel sama bopp oto na jëkk dugg Sénégal sa waay li fi nekk du ci oto yi you Sénégal yëpp la dañoo teguwul si yoon indiscipline bu kenn xamul moo fi nekk.